السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكو جلدي بكو تالي موردي ني لين ديني باخ شي ديغل اك تورو الشيخ محمد المنتخى ميغا خاني مو في سيرين توبا تاي كوسوف ني نيان سوني بروم مو ياغال تم عندك لول تام اندك وير كاتانال كو ني بام نالي ام سي ليغيال سيرين moom mottali ko lu kaw jortam ñuy dellusiwaat fii nag tey ci niñ ko baaxoo defe ci li ñuy tudde euh, ala athari cheikh ni ko sëriñ lu waxe léegi muy loo xam ne bañ ko tàmbalee léegi yàgg na liñ ci jub jubluwaay bi nag weesuwut topp jeexiti sëriñ Touba ndax sëriñ bi fi jaar dafa bari ñim am lante dafa bari ñi ko topp itam seeni jeexit dafa yaatu kon ñett seeni jeexit ñett li jeexit Sëriñ Tuubaa moo tax nag ngir màggal gi xam ne mooy dajewukaay jul ji ak taalibe yi moo tax ñu xalaatoon at mu jot at ñu tànn génn fànn wala benn gox ci réew mi ngir bu fee bu dee barab bu sëriñ bu mas a jaar la ñu demaat fa fàttali la taxoon sëriñ bi jaar fa ak la fa xewoon bu dee barab boo xam itam ñu am lante woon sëriñ bi la mooy itam ñu defe ko noonu ñi nga xam ne itam njabootu sëriñ bi lañ wala ñu àndoon sëriñ bi itam ñu defe ko noonu ndax ñoom kat xamle leen mooy xam ne sëriñ Touba moo tax at mu jot dañuy tànn kenn ci njabootu sëriñ Touba tànn kenn ci bokk yi bokki sëriñ bi tànn kenn ci cheikh sëriñ Touba yi tànn léeg-léeg ñu tànn leen ci ñi nga xam ne ñoo bokk ñoom lislaam bokk ñoom réew mi ngir ku ci ne am na ci barab yoo xam ne lañ seqoon ak sëriñ bi yàgg na te ren ba histoire boo ko dul nett li di ko fàttale wala nga di ko bind bu yàggee day mujj mel lu far kon nag yéen ñi nga xam ne yéen la liggéey bi nekk ci seen loxo ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm di leen soññaat itam ndax na ngeen xam ne seen liggéey bi liggéey bu yaatu la liggéey la bu am jeexit ndax jeexit ji mooy ña ngeen di fekke ñooy dil si di ko wax euh, sëriñ Sidi Muxtaar am na ay yoon yoon at mu jot moo may fàttali ne ma liggéey boobu ñuy wax karawaan bi de xam naa lu lu soxal bokk jullit yi la ndax ñoo ñëw bu fi di ma ko bokk taali bi itam noonu la leen itteele moo tax ren jii ñi nga xam ne tànn nañ leen ngir fàttali leen ak euh, fàttaliwaate lañ seqoon sëriñ bi ndax bu màgg li xasee ba dugg day xat ba am na ci loo xam dañ ko mën a war a leeral duñ ko def wala daal ngeen xam ne dañu ngeen kee cantuk sëriñ bi ak ngërëm bi nga xam ne Cheikh Sidi Moussa bàyyi ko ndax ci biir ak xilaafam la lii tàmbale bi mu fi bàyyi ko itam yoon wi lépp lu ñu ci def ki fi nekk sëriñ Tuubaa moo ci sañ a digle moo ci sañ a tere moo tax duñu seq benn jéego te laaju ko ci digal daaw bi nga xam ne yéen a ngi tàmbali liggéey bi conscience laa daal di jóg laa ko yëgal sëriñ bi leeral ko ko lépp ba xam ni mu daal di mu jox waa ci digal yeesaar ko ren ji itam laata ñu seqaat benn jéego demaat nañ ba ci moom laajar ko ci ndigal mu jox waa ndigal yi ngeen xam ne li ngeen def ci ndigalu sëriñ bi ngeen koy kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan itam ci barke Sëriñ Tuubaa li ngeen ci fas yéene liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla na ko Sëriñ Tuubaa nangu amiin yàlla ngeen ci daje ngërëmam yàlla na suñ suñu borom aar sàmm leen ba ngeen dem jàmm dellusiwaat ak jàmm te day ceeg ndam loo xam ne mosuñu ko jàmm ñu ngi leen koy ñaar bu baax te na ngeen ci rafet jot ndax ah, ndigal moom lépp lu ko loo xam ne eh, jiitu na ci rek yaakaar mën na caa tege hmm. kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di fàttali itam nag eh, ni ñu ko daa waxee bis bis bu jëkk ci safara muy suba ci altine bi eh, lañ war a jàng alxuraan bu fekkente ne ndax weer day feeñ wala mu ñàkk feeñ comme guddi xasida gi rek bëgguñu woon mu nekk lu lu weesu bisu bis bu jëkk ci safar moo tax ñu jàpp ko suba ci guddi njàngum alxuraan bi itam ñu jàpp ko ginnaaw boo xamee ne ñaari kilifa yi nga xam ne ñoo koy taxaw ku ci ne eh, jot na la ko ci ndigalu sëriñ bi bañ déggoo ci ka jiitu ci wàllu alxuraan di cheikh sëriñ Mamour Mbacke ibnu cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo koy taxaw ànd ko sëriñ Khady Diakhaté ba ca del dolli ko waat it mooy euh, Serigne Hamsatou Mbacké ibnu Serigne Souhaïbou mi nga xam ne guddi xasida gi mooy jëwriñ jëm moo koy taxaw ñu fas fas ko yéene ànd ak moom ci penk jumaa ji delloo lépp toroxlu dellu ci yàlla euh, teewlu Serigne Touba jàngi xasida bi ñaan màgget bi jàmm njëkk ci mujj si te lépp luñ ci def itam day see ngërëmu suñu Tuubaa te dara loo xam ne mbirum àdduna la bañ ca tabbi dara loo xam ne lu dëppoo wut ak bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa bañ ca tabbi kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu Sëriñ Moodu Mbàkke si mi nga xam ne moom la Sëriñ Abdou Lahad tànn ci liggéey bi mu jiite ko moo ñu ngi ko àndal jëm ñëpp di Sëriñ Fàllu ak euh, Sëriñ Gànna Mesar ak ñi ña xam ne dolliwaat nañ leen ci ren ndax liggéey bi ñu ngi ko topp waaye gis nañ jeexee ji gis njëriñ kon yàlla ngeen ko yàgg def day ci tawfeex day ci ngërëm suñu Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh